si xalaat bu dee ABDS moom xam naa ne duñ ci jàpp kenn parce que ñun waxtaan nañu ak suñu membre mhm. nee nañ état bi lu ñu wax képp ku ko mun a dem marché jëndi respecté lu mu wax na dem jëndi bagage ñëw respecté ko képp koo xamante ne gisoo ci sa bopp jarul ñu lay jàpp ci produit boobu mhm. côté boobu mais su fekkee respecté wu lu état wax nag euh, état non dañ koy respecté mhm. ñun dañuy respecté li état bi wax prix bi mu wax ñun ñun nee naa la nee na nee naa la nee naa la nee naa la non defal ndànk rek. et non est-ce qu'ils ont le choix de de respecter. ah mais su fekkee mais su fekkee dañ ko respecté daf ne nee na amul problème su fekkee mën ñu ko mën a respecté ñu respecté ko ñu ko mën respecté tamit déggoo ma de waaw su ma demee marché ma xam ne suukar bi dinaa fa fekk 28850 bi état bi def mhm. ma jënd jaay 600 mhm. mais su ma fa fekkul suukar 28650 du ma jënd suukar soo ma laajee suukar dama lay wax suukar amul léegi loolu la ñu ragal population bi ñun li ñu ragal ci population bi mooy mhm. di ngeen dem bitik fii ak 10 jours wala cinq une semaine kenn ku ne di nga dem sa bitik doo am li nga bëgg d'accord Amadou on termine rapidement. cest à man ci contrôle bi lay lay ñëwaat rapidement c'est-à-dire chaque fois état bi dafa naan nañ wàññi wàññi mais dañuy toog tuuti rek ñu gisaat li nga xam ne moom moo yokk bi. de la waaw de la de la de la part des de la part des boutiques yi muy wàññi vraiment contrôle bi amul fi mais aussi je pense que ni boutiques yi aussi ñoom à chaque fois wàññi bi yokk bi tamit ñoom it duñu duñu duñu raté benn occasion pour mën yokk tamit affaire bi. mu si fi jógee gis yëpp waa contrôle contrôle bi mosu fi jógee contrôle. mosu fi jógee mu ngi fii tout le temps chaque jour ñu ngi fii. ñu tax tolloo leen ci prix yi. non ñu ngi toppatoo xam nga marché mooy changé marché mooy xëy tey tey tey tey tey mais ñoom tout le temps bu marché changé dañuy gëm marché mooy changé. Mhm, merci marché bi mooy xëy rek changé bu changé nag contrôle bi day gëm. merci beaucoup jaajëfal nañ la le dernier mot euh, di nuyu di nuyu Sénégal yépp di di leen ñaanal jàmm di leen fi mu waroon tàmbalee rek. souhaité tabaski bi ñuy jàll di ñaan aussi état bi ñun xam nañu am na yéene mais nag yéene bii day ànd ak waxtaan mm. te bu ñëw déglu magi démb yi nañu déglu xale yi <laughs>